docteur mbay Cissé maa ngi lay nuyu. maa ngi maa ngi lay euh, docteur Mbaye Cissé nga nekk euh, juriste nekk euh, membre de la coalition de l'ONG Publiez ce que vous payez déjà Sénégal officiellement nekk na producteur de pétrole naka nga gisee xabaar bi. waaw ni ma ko gisee comme ni ma ko waxee woon léegi xam nga vers les années constaté ni Sénégal trouvé na ay gisement de pétrole et de gaz d'abord ci euh, côté Sangomar bi ak Woodside li mu fay exploité muy trouvé fa vingt trois puits war ko exploité ak euh, fi nga xam ni moom mooy euh, gaz bi nga xam ni tortue bi nga xam ni BP pétrole am trouvé na ko au niveau de au niveau entre la Mauritanie et le Sénégal au niveau de Saint-Louis ak li nga xam ni moom mooy Kayar offshore bi mu nekk loo xam ni romb nañu phase exploration bi c'est-à-dire phase recherche yi mais actuellement lu ci concerné Woodside ci vingt trois pays ci Sangomar yi mu trouvé ñu ngi ci phase exploitation bi ba wax nañ ni daanakaan première baril yi ñu ngi génn génn génn yeer mm-hmm. mm. euh, tey jii kon euh, est-ce que mën nga ñu wax ci type de pétrole boobu le est-ce que Sénégal pétrole bi mu am mooy comme bi am Nigéria wala ban façon pétrole la En tout cas, je suis pas spécialiste en, en, en, en, pétrole, mais en tout cas, je, en titre d'expérience, j'ai vendu du pétrole dans une entreprise. Euh, j'ai travaillé également dans des organisations pour euh, qui concerne l'exploitation du pétrole et du gaz, concernant la protection de l'environnement. Mais les mooy euh, pétrole moom euh, daanaka nu produit noir bi nga xam ne exploité nañ ko après dañ koy raffiné buñ ko raffiné nag dinañ ci génnee essence mën nañ ci génnee euh, marine zoom mooy yi nga xam ni moom la pirogue yi di di utiliser gaal yi mën nañ ci également kérosène bi nga xam ne moom la avion yi di utiliser mën nañ ci génne super carburant mën nañ ci génne gasoil yi nga xam ne oto yeeg moto yi moom la ñuy dawal yooyu type de type de type de kii lay production carburant la yoo xam ne yépp produit noir bi daf koy daf koy toggaat bu ñu ko raffiné da koy da koy génne. Mm-hmm. léegi ñu ne pétrole gaz bi pétrole Sénégal bi plutôt euh, dina dem ci wàllum export exportation plutôt mais aussi ci wàllum consommation domestique lan nga ñu ci a waa effectivement eh, xam nga kuy produire pétrole di nga préparer pour exportation parce que réew yi léegi daanakaan lu ñuy gën a dem ci développement technologique ñuy gën am voracité ñuy gën a xiif di gën a soxla lu ñu naan énergie te énergie yu ci bëri daanakaan ci pétrole loolu lay génnee nest pas donc Sénégal dina exploite du exploite continue maanaam li mu li nga xam ne moom la ci am mooy dix pour cent dix pour cent yoo xam ne ci phase ci phase ex ex si phase exploitation bi la parce que wax naa léegi ñaari phase la phase exploration mooy phase recherche yi te phase exploration yi dafa coûteuse mais également dafa dafa bëri risque te ki nga xam ne moom mooy garde charge yëpp mooy filiale bi mooy euh, entreprise bi nga xam ne moom moo koy exploité Euh, comme par exemple Woodside bi nga xam ne moom mooy exploité pétrole lu Sangomar bi moom phase exploration bi muy recherché yooyu yëpp charge yooyu moom moo ko gàddu xamul woon dina trouvé wala du trouvé actuellement yàlla def na trouvé na presque vingt trois puits donc ñun par rapport ak contrat yi liñ ci am mooy li nga xam ni moom mooy dix pour cent selon l'ITIE l'initiative pour la transparence des des des de des des, des industries extractives ñoom ak contrat yi nga xam ne moom la ñu pile ak état du Sénégal dix pour cent la ñu ci am dix pour cent yooyu nag boo jëlee la loi sur le contenu local d' abord loi sur le contenu local boobu day permettre ñi nga xam ni ñoom ñooy ñoom ñooy euh, localité bi par exemple boo demee bu Foundiougne ak euh, dix de de douze communes yi nga xam ne versé nañu ci ci delta du Saloum ñoom ñooy les premiers impactés ñooñu buñ si dindee seen douze pour cent yi ñu wax ne moom la la contenu bu ñu bu ñu bu ñu nañu utiliser également au niveau interne disperser Sénégal yi ci des par rapport ak vente locale bi peut-être lu ci des mën nañu dem explo mën exportation peut-être dans les autres pays comme euh, ay Malek yooyu mais xam naa ne balaa boobu il faut que ñu xool ba xam lan la lan la war a mën a jur balaa ñu xoo exportation parce que fi ñu accès suñu kii mooy maanaam li ñu li ñu détenir ci pourcentage dafa tuuti dix pour la te pour cent boo ci bëggee dindi contenu local bi dindi ci également li nga xam ne moom la ñu war a utiliser au niveau au niveau au niveau interne dafay dafay xaw a jafe. Hmm. li ci gën am solo ci ci mbir yi moom mooy euh, comme ni ko déggee autorité yu bees yi euh, président euh, Diomaye ñoom li ñu wax mooy dañuy renégocier les contrats pétroliers et yi est-ce que juridiquement loolu mën na nekk wala mënul nekk docteur. mbay si waa xam nga ce sont des contrats d'état contrat d'état yi dafay am dafay am ay termes dafay am également ay clauses yu ñu ci dugal te daanakaan signé nañu wax naan léegi phase d'exploration bi dafa bëri chargé te entreprise bi moom mooy gàddu daanakaan charge yëpp dafa am ay risques entreprise moom mooy gàddu risque yëpp mais bu fekkee ñëw nañu ci phase exploitation bi dix pour cent lañ ci am donte ne tuuti na niñ ko négocier woon ci début ba baaxul mais est-ce que entreprise boobu dina nangu d'après avoir dépensé beaucoup d'argent ci phase exploration bi ñëwaat ni dafay renégocier pour phase ci phase euh, export export euh, kii euh, Euh, ci phase de production bi donc boobu dafay nekk lu xaw a difficile te buñ ci bëggee dem ak euh, exigence peut-être mën na jul ay contentieux ci juridiction internationale entre Sénégal ak entreprise yooyu donc je pense que négociation boobu tamit saa va dépendre ci bon vouloir entreprise boobu ba xam moom lan la ciy am est-ce que dina ci am ristourne est-ce que dina ci am bénéfice en tout cas peut-être dina dina xaw a difficile parce que phase bi nga xam ni fa la basé wu phase exploration bi muy recherche phase boobu phase coûteuse la phase bu risque la ci moom mais waxoon naa léegi phase bu risque la moom mais risque na également ci état du Sénégal parce que delta du Saloum dañu ko inscrire dans le patrimoine mondial de l'UNESCO te patrimoine te moom l'UNESCO dafay tere euh, foo xam ne ñu ngi fa ngi ko inscrire ci patrimoine am ñu bañ fa exploiter yu mel ni ay pétrole parce que énergie fossile la te dans la plupart des cas bëri na ay organisation yoo xam ne actuellement euh, organisation environnementale même actuellement ak convention internationale yu ci bëri comme ay COP 21 daje yooyu ñuy daje ñi ngi tere sax yenn pays ñu exploité yu mel ni gaz ak pétrole parce que impact bi muy am ci environnement bi impact muy am ci la ci la ci la ci la condition humaine dafay nekk loo xam ne dafay dafay dafay dafay yàq alam bi de telle sorte que ñoom lu ñu proposé mooy ñu commencé di exploit li ñu naan l' énergie renouvelable maanaam l' énergie propre l' énergie euh, bi nga xam ne moom mooy énergie éolienne buy jógee ci ngelaw li wala buy jógee ci tàngaay bi énergie électrique Euh, kii euh, euh, énergie solaire bi wala bi nga xam ni moom mooy jugee ci ci ci ndox mi comme bi ñuy am ci barrage yu jama parce que boobu moo gën a propre te amul impact ci environnement bi mais par contre énergie fossile bi daf lay bàyyil envi daf lay bàyyil également ay impact parce que boo jëlee exemple Nigéria ñoom daanakaan am na dëkk yoo xam ni ñu ci bëri dem nañu ba nii même espérance de vie bi à un moment donné Euh, daf leen jural daf leen jural daf leen jural daf leen jural wàññeeku ci espérance de vie bi parce que pétrole bi fa entreprise ba bàyyi woon ba mu koy exploité ba mu demee après pétrole ba dafa ballaat bëttaat population bi ñëw di ko ŋàcc produit noir bi rafetlu wuñ ko di ko jaay affaire bi nag jural leen ay feebar yu métti ci seen ci seen der daanakaan mu wàññi lool seen seen espérance de vie loolu nag état du Sénégal waroon na ci teel a réfléchir également sur l'étude d'impact environnemental parce que ñun aussi liggéeyoon nañu dans dans un projet boo xam ne c'était le la protection l'écosystème du delta du du du le projet de résilience de l'écosystème du delta du Saloum xool ba xam nan la ñu mën a protéger delta bi contre contre pour pour ci conforme ak exploitation pétrole bi ci Woodside parce que bi ñu demee communauté yi wax nañ ne ñoom am na sept baleen yoo xam ne gis nañ ni baleine yi da ngay jékki-jékki gis baleine bu dee xamuñu nag lan moo leen rey état du Sénégal prononcé wu ci entreprise prononcé wu pêcheurs yi également kaas nañu wañ même ent même machine engin bi doon def exploration bi daanakaan doo ko bëgg jege. Euh, finalement boo ko jegee da ngay obligé sax tuuraat jën yi nga xam ne moom nga nappoon pour mën a daw dem parce que dafa am ay risque beneen bi mooy communauté yi ñi nga xam ne ñoom ñooy les femmes transformatrices ñoom dañu wax ni dem nañu ba produit halieutique yi daanakaan dafa mujj raar mu mel ni peut-être poisson yi ak yi nga xam ne dañu peut-être migrer wala dem mais en tout cas waroon nañ ci def ay études yu leer pour wax ñu lan mooy ban impact la Euh, l' exploitation pétrole boobu di am ci ci ci ci au niveau de du delta du Saloum mi nga xam ne dañ ko inscrit dans le patrimoine mondial de ko loolu mooy risque yi nga xam ne am nañ ko au niveau interne. Mm. Euh, tey jii kon lan la mën a changer production pétrole bi euh, ci koom-koomu réew mi mais aussi ci quotidien wu sénégalais yi. waaw war na mën a changer lu bari parce que boo demee ba commencé di exploiter pétrole non seulement bu ñu jëlee la loi sur le contenu local nga xam ni. gox bi nga xam ne fa lañ ko ŋàccee moom dana ci am benn pourcentage donc jeunes yi mën nañu ci liggéey mais également pétrole bi ñuy jaay ak gaz bi ak li nga xam ni moom mooy essence bi ak euh, euh, marine zoom bi euh, huile de temps bi ak li nga xam ne mooy gaz waal beeg super bi yëpp war na mën a wàññeeku litre bi mille francs mën comme dem nañu bay exploité war na mën a jël litre bi trois cent donc donc loolu euh, impact la bu positif ci ci ci ci niveau interne mais également ci ci niveau local ak créatrice également d'emploi la mais également beneen bi ñu ci war a wax mooy la permettre ñu aussi ñu ñu ci boole ci les les les joint venture contrat de joint venture yi bu ko defee mën même entreprise yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Sénégal amaguñu doole exploiter mais également ñu si de telle sorte que bu ëllëgee ñun aussi dinañu war a mën a am di di di am doole pour exploiter yenn yenn yenn gisement yi. Mhm. dernière question docteur si euh, Cissé enjeu yi euh, fi ñu toll nii dafa mel ni Sénégal euh, ñëpp la intéressé surtout que commencé na di produire pétrole lan mooy enjeu yi exactement selon yow. waa également dafa am enjeu sécuritaire sur le plan sous-régional sur le plan régional mais également sur le plan international même bu fekkee zéro virgule huit pour cent ak zéro virgule sept cinq pour cent la ñuy représenté ci monde bi par rapport à exploitation boobu noonu Euh, sur le plan interne ak sur le plan sous-régional ak par rapport yeneen pays daanakaan euh, c'est la ruée vers le Sénégal ñëpp ñuy soxla dans un contexte boo xam ni zone CEDEAO bi dafa xaw yëngatu ak dans deux organisations qui sabat lu ci mel ni laay l'état du les états du des états du Sahel ak la CEDEAO donc ñu ngi nekk seen biir nekk nouveau nouveau nouveau nouveau producteur de de pétrole donc il faut que ñu taxaw si benn taxawaay boo xam ni taxaw seetlu bu bu yaatu la jéem a xool xool également frontière parce que actuellement c'est la ruée vers le Sénégal di nga gis yeneen nit yuy ñëw di fi wut si liggéey di nga ay yeneen dëkk yuy ñëw di la demander à ce que pour exploitation kii euh, demander pour achat des des des des des litrage de pétrole ak ak gaz te loolu dafay nekk loo xam ne lu xaw a danger la moo taxoon ma ni euh, même un ministère de de de l'immigration waroon nañ ko mettre en mettre en place pour xool ñi fiy dugg ñi ñan la mais également ñi fiy génn ñan la boo ko defee ñu mën a xam suñu état civil xam suñu identification parce que réew aussi buy dox il faut que ñu am état civil bu sécurisé il faut que ñu am lu ñu naan le ministère de limigration bokk la ministère des affaires étrangères bi gérer tout ce qui est diplomatie relations internationales bokk la les le ministre des affaires sénégalais de l'extérieur la secrétaire d'État bi gérer la situation des sénégalais yi nekk à l'étranger mais le ministère de l'immigration bi nga xam ne dafay gérer ñi nga xam ne ñoom ñooy dugg di génnaat ci biir réew mi parce que bu boobaa dafay am problème parce que au niveau sous régional ñu ngi fi wax problème terrorisme ñu ngi fi wax problème mu criminalité organisée de telle sorte que loolu war nañ ci war nañ ci mën a mën a bàyyi xel dans une très large mesure. Mm-hmm. merci beaucoup docteur Mbaye Cissé en tout cas ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci disponibilité bi. Mm, maa ngi lay remercier maa ngi lay gërëm bu baax di kontaan également ci invitation bi. docteur Mbaye Cissé ñuy fàttali ni euh, chercheur ngay spécialiste en études de droit euh, bokk aussi ci ONG euh, coalition publier ce que vous payez bu Sénégal ak Afrique merci pour la disponibilité